spécial bi bàyyi la nga nuyu ak plateau bi d'abord. Anta Babacar. Mhm. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu baax a voilà Anta Babacar Ngom alors gis nga ko euh, muy décision bi nga xam ne le président de la République Macky Sall jël na ko suspension du processus électoral woote également dialogue aucune précision euh, sur la date euh, bi nga xam ne moom la ñu mën a amal élection présidentielle yi nga xam ne ci la ñu war a jëmaat ban jàngat nga am ci lool noonu yëpp nga xamante ne tey le président jël na ko comme dogal. voilà ma révolte est aujourd'hui profonde face à cette manœuvre. C'est une manœuvre qui, sape aujourd'hui l'éthique de notre système démocratique. le président de la République vient de prendre une décision qui est loin d'être anodine. C'est une violation manifeste de nos droits civiques qui empêche quand même les candidats d'assumer leur rôle et les citoyens de déterminer leur leadership. je, perçois vraiment cet acte comme une trahison flagrante de nos valeurs cardinales. Mm-hmm. Il, est aujourd'hui évident que les intentions des intentions Mmh. Moi, voilà, je pense que c'était prémédité. Et ça illustre une volonté de conserver le pouvoir au mépris du choix populaire. waaw ci ci euh, Anta Anta Babacar euh, ñu lay ñu lay pour ñu lay seetaan également war ci am euh, sa kàddu ci wolof par rapport ak décision bi. waaw décision bi ñoo ko déggandoo wane na ne que suñu réew suñu démocratie réew dafa dellu ginnaaw mu nekk loo xamante ne mënuñu koo nangu. Mhm. Euh, xel nanguwu ko ndaxte Sénégal toll na foo xamante ne ñun euh, population sénégalaise ñun ñoo décidé ne que dafa jot. ñu indi coppite indi changement ci système bi nga xamante ne moo fi nekk ñu teg ko nag ci yoon bëgg dugg dem élection li ñu naan dem ci géew gi bëre de façon juste de façon libre de façon transparente tey ñu bëgguñu koo xañ mu nekk loo xamante ne duñ ko nangu euh, explication yi nag président de la république joxe ba nga xamante ne sax jàpp naa ne dafa daw see responsabilité ndaxte bu taxawee ba ne moom signé rek la ci def daal fi ñu toog nañ toog di déglu assemblée nationale man jàpp naa ne ay xeetu dóor la loo xamante ne mënul dugg suñuy xel te ñu koo nangu. mënuñu koo nangu da ngay taxaw nga assumer ses responsabilité te lépp lu ci xew yaa ko nga xam ne yaa ko indi Sénégal mu mën ça bilan wam mi ngi nii mi ngi soog a feeñ lii mooy bilan wu président Macky Sall et c'est dommage parce que mënoon na am bilan bu ko gën mënoon na am bilan bu ko gën xaar ba tey mm-hmm. quelques heures ay waxtoo ci des mm-hmm. candidat yu mel ni man pareel seen lépp di waaju dugg campagne wax ak sénégalais yi gisanteeg mm-hmm. ñoom ñu ne ñu doo leen ci dem dañu xam ne xel du ko nangu te lépp lu xew. ci Sénégal Anta yaa ngi koy répété depuis tout à l'heure xel du ko nangu du ngeen ko nangu benn yoon euh, euh, lan mooy jéego bi nga xamante ne moom ngeen di teg nan ngeen di taxawee par rapport décision. waaw ñun waxtaan nañu ci suñu biir ñi ngi waxtaan euh, ñun leader de l'opposition dinañu gisee fii ak i waxtu yu néew toog nag euh, boole suñuy doolee amul parti politique ak couleur ku nekk fi nga jógee fi nga bokk la nga koy jël nga teg ko sax de côté ñu wax benn say opposition bi booloo dina dinañu xeex de façon légale ba nga xamante ne ñu dégg ba ca kaw yore kàddu peuple bi dinañu ñu moom mi ngi wax la président de la république euh, euh, mi ngi wo opposition bi ci dialogue parce que bu wootee les acteurs euh, tey mbir yi ñi ko seq moom mooy le pouvoir l' opposition les acteurs bëri nañu la société civile ñëpp ñu ngi ci biir dialogue boobu baba Babacar Ngom dina ci dem teew. bi mu waroon a wootee wootewut bi mu waroon a waxtaan waxtaanut xaar ba tey bañ ne dañuy duggi élection campagne électorale muy woote pour waxtaan je pense que <laughs> jotu waxtaan weesu na. wante comme ni ma ko waxee nag vu que dañ bëgg a boole suñuy kàddu boole suñuy doole euh, dinañu waxtaan ñun ñëpp jël benn décision décision bu ñu munti jël nag man Anta Babacar dinaa ci conformé wu wante bu doon sama décision propre man Anta ñu ne demal nga wuyu président Macky Sall parce que dafa bëgg waxtaan dinaa la ne waxtaan bi mu jotee waxtaanu donc du tey la ñuy waxtaan sénégalais yi bëggatuñoo waxtaan dañoo bëgg a voté. et eh, eh, coow li nga bokk ci parce que bu waxee double nationalité euh, rumeur yi euh, daanaka boole nañ la ci lim bi eh, bi ñuy lim ñi nga xam ne ñoo am nationalité génne Rose Wardini yéen ñaar yéen ñaar yéen ñaari jigéen ci biir euh, ñaar fukki candidat yooyu lan nga ñu ci wax pour les téléspectateurs de la Sen TV. waaw loolu boole naa ko rek ci xeetu dóor yu bees yi ñuy bëgg a génne ndaxte ne presque daal candidat yëpp ku nekk am nga ci beneen nationalité pour man mi ngi bëgg a continuer jaxasewaat xelu nit ñi ci man li ma concerné man Anta Babacar je suis à cent pour cent de nationalité sénégalaise juddoo fi màggee fi yaroo fi te dara dara dara duma ko mën a dindil xaw ma nag ban nationalité lañ may jiiñ wante fii laay sama nationalité cent pour cent sénégalaise loolu amul sikk sàkk amul jut buñ ci wala a créer ci bopp sénégalais yi Pikine googu laa juddoo te awma ma takk ci faneen ñu lay jaajëfal bu baax a baax Anta Babacar Ngom euh, bokkoon ci candidate yi nga xamante ne candidat yi nga xam ne plutôt waroon nañu dem ci élection présidentielle bu ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février maa ngi naan bokkoon ah oui war naa wax bokkoon parce que am élection yi moom dàq dàq nañu ko donc donc bokkoon la laa mën a wax oui su may su may yegale si fi ma nekkoon waaw mooy que ni euh, euh, acteurs yi ñoom pratiquement ñëpp a seetaan ba li xew-xew mhm. jàpp naa nag waroon nañu def bloc pour wane ni d' accord ñu si lii wala illaa nuñ koy doxalee euh, mais nag béy wéy na mbuus nuñ koy waxee malheureusement léegi nag du ma ne euh, am na ñoo xam ne ñi ngi bokkoon si euh, amaana sax kandaar yoo xam ne jàll nañu te xëy na am na sax ñoo xam ne ñoom il sax la report mhm. ñàkku si parce que tamit am na yi woon am na ñu bari ñoo xam ne amul sax budget de campagne mhm. amuñu ko woon am na ñoo xam ne amuñu sax euh, li nga xam ne mooy lu ñu war a tëgg pour mën a battre campagne ba aller dans le sens de pouvoir convaincre les Sénégalais am na xëy na ci maintenant léegi nag report bu dee am na comme ni nga ko waxee dialogue après léegi nag président bu wootee dialogue dialogue boobu la kan moo say dem ñan ñoo say dem ak lan ñu war a waxtaa war a waxtaanee ak lan ñu war a mën a retenir d'essentiel est-ce que dialogue bi dina jur loo xam ne dina mën a méngoog wala mu raw li tax boobu ba léegi amatu fi te ñu ngi koy tudd ba léegi muy code consensuel de ah, mm, en terme de réforme institutionnelle lan la ñuy àndi en terme euh, euh, de de de de participation à l' présidentielle pour les acteurs politiques euh, ak ñeneen indépendants yi lan lañ si soppar ñi ak yu demee noonu mais aujourd'hui ce qui est malheureux mooy sax bu ngay bu ngay ñëw fii nga gis ni mm-hmm. tout Dakar a été déjà cadré tout Dakar mm-hmm. avait déjà été cadré mm-hmm. loolu rek war na ni effectivement euh, que ni euh, fa ñu jëm mooy président dina wax te li muy wax mooy effectivement dina dàq élection yi. Mhm. maintenant nag du soobu nañ si euh, je crois bien que ñu ngi doon wax bële. le mhm. processus est irréversible mais aujourd'hui le report en réalité dugg na si benn processus boo xam ne c'est irréversible ta à dire que delloo mëntuñ see dellu ginnaaw. Mhm. assemblée nationale ba day voté jëm si li nga xam moo jëm si report bi maintenant man li ma si gën a intéressé mooy deadline bi kañ la. deadline bi kañ la est-ce que c'est est-ce que ça c'est dans 18 mois est-ce que c'est dans 24 mois. mais loolu. loolu ce dialogue ba la ko bëgg a discuter pour gars yi valider ci dialogue bi la ñuy xoolee les comptes. ñi nga xamante ne moom moo tukki mën a mën a discuter. ci dialogue ba la ñuy discuter. Euh, mais dialogue ba la ñu se discuter discuter fii dialogue ngeen dialogue. Ablaye au dernier moment. kay jël décision bi. xam ngeen la te mooy njiitu réew mi. xam nga yàlla yàlla yàlla constitutionnel. kenn du yàlla mais mais mais oui hmm. euh, euh, aw. Hmm. Abdoulaye junj na ko. Mm-hmm. mais sànq ci sunu euh, plateau bi ñu amoon. Mm-hmm. man également maa ngi ko doon laaj ñi nga xamante ne moom mooy journaliste yi fi teewoon li ja jiixi jaaxe xelu askanu Sénégal mooy les dix neuf candidats. ndax Amadou Ba moom bu fekkee moom la ñuy accusé wala di ko di ko tuumaal te moom waxul xanaa les dix neuf euh, candidats doon ay politique waroon nañoo jéem a xam ne. fii la président de la république Macky Sall jëm ak ñoom maanaam reporter élection yi ndax même les acteurs même les observateurs mm. même taskatu xabaar yi xamoon nañu ne fi la ñu jëm xanaa ñoom bi ñu ko xamee waruñu woon toog na yàcc rek